mbokk yi yan melokaanu bokkaale moo tas ci jeunesse bi tey tas ci xale yi wari dee surtout nag ña ca jëm ci côté diine ñu demoon ci côté diine sa grave ndax musiciens yi dañuy def façon waxtaan yooyu dañoo jàpp ne sañ nañ ko fenn ci kat yi dañ koy def stade yi dañ koy def waaye am na ci jeunesse bi ñoo xamante ni même ci côté tarixa diine dañuy la ñor moo tax ñu dem fii ci tarixa am lu ñu jàpp am lu ñu jàpp ci seen tool ngay sentir que ñii kat dafa am kër bu ñu bokk ci seen dox ngay sentir ni dafa am kër bu ñu bokk ci seen wax ngay sentir nag ñoom dañuy interpellé di wax leen bokkaale nañu ko moytu bi ci jiitu bokk na ci mooy al istigaathatu wal istijaabatu bi ghayrillah mooy di xettaliku ci turu yàlla yàlla subhaanahu wa taala mooy xeetali xeet kon foofu lu mooy nga woo ki nga gisul te mi ngi mooy yàlla ndax foofu nga nekk soo woowee mbindeef mënu faa ñëw par exemple nekk ci oto oto bi accident wala nekk ci avion bu def crash wala nekk ci loo xamante leer na ni yaa ngi jàkkaar ñoom bu la nar a rey nee na ñu bëri na leen di daal nan la ñuy def di woowee ñu def sëriñ diw bañ diw xettali ma nangam nangam kàddu yu bokkaar yu grave la ndax da nga woo ci bërëb bii ku fi amul benn pexe amaan na sax da ngay woo nee na ana lan moo tax nga jël yàlla teg ko lu tax nga teg di place yàlla teg fa mbindeef kii nga fay teg bu munoon dara kon du génn àdduna mbokk nañu moytu lu mel noonu léeg-léeg nga dégg koo xam ne ci kàddoom ak dëgër fitam waaye ak ñàkk a xamam da gis muy jël ay xettaliku di ko teg ab mbindeef nga jël dem nañ ba àgg sax ci diw yaay borom jàmm amaan na sax ñu may way di ko sikkat diw moom moom jàmm su dul woon ak diw kenn du yoo xam ne bokkaale bu grave la ak këru diine boo mënti bokk buñ koy wax yëgal ni bokkaale la yàlla da koo tere yàlla da koo araamal ndax këru diine ba wax dee na bu yàgg xamoo fu mu ne xamoo fan ne yal na ko yàlla boole te nee dem àjjana waaye xamoo ko kooku ngay su fekkee ma nga àjjana su fekke ma nga safara taru la te da nga yalla lu ci nekk la mën def dañ koy ñaan ñepp dem jël yalla ko def waye mbindeef kenn du li mu ci do bari na ci jigen ñi bari na ci boori yi léeg-léeg nit def vidéo naan ba ma problème sangam dama wo sëriñ diw bu saxu mu fay léeg nga nek ñu ci seen base seen xew-xew yi naan ku jàmm wol woon boo wooyee diw sa nangam nangam ndaw ñi jël loolu di ko def challenge mbokk ana kan moo gën réew kuy ñaan xettali ko ci mu dee loolu borom benn ko wax ci surat ahqaf wa man adallu mimman yad'u min duni illahi man la yastajibu lahu ila yawm alqiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idha hushira an-nas كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ورب لي أنا أنا كم من رير كي و كوخمني دير كم من غن سانكو كي نيان سوخلو كودير كم من غن سانكو كي خيتليم كي كودير كم من غن سانكو كي غا خامتني دا فاي نيان ديمبل كودير يالا نينو كو سانكو ميلو même booy ñaan sax dimbal xëy na nga ñaan ko muy dund sax ñu ne dara la amaan na bi ñu ko woowee mën naa jël boppam daal peut être mu jël avion wala indi ko mu jël boppam jëm au moins xaw na am tuuti lay mais bu dee amaan na bi muy dee fekku la ay siècle leer ay hectares nga di ko woo ci problème bu gaar léegi léegi léegi mais lii boo nee defuloo ko yàlla kon kan nga def yàlla kon yàlla ne li gën a sànq ki gën a xànq kii moo bindeef mu génn àdduna yàlla dafa ca leneen lu mënta tiit wa ida bushira nas kaanu lahum aada nee na bis bu ngeen dekkee ña ngeen doon woo ñoo leen di dëkkandoo woo billahi ku yaakaar ni boo dekkee sëb sëñ ñu war la la sama tàng yàlla nee na wallahi bu dekkee da lay loolu ndax yaa ko dugal ndax yaa ko dugal yàlla moom boo leen yaa ko woo ci say problème yaa ko woo ci ndox mu dugg sa dëkk yaa ko woo ci gunóor yàq sa tool waa ji taxaw ni yàlla wallaahi man yàlla ma xantu na na gëstu muy dëkk daw ki nga yaakaaroon su dawee yow bi taxaw looy def kaanu wala mu aadaa na seen noonu la ñuy doon de di woo wa idaa bushira naas kaanu wala mu aadaa de dañuy nekk seen noonu wa kaanoo bi ibadatihim kaafiriin la ngeen doon tëgg di ko fecc di leen woo naan ñooy borom jaam yi ñooy xettali bi ñooy nangam yàlla nee na ko weddi te danañ ngeen noonu bokk na ci bokkaale bi nga xam ne ñu ngi ci làmmiñu ndaw ñi dañu tàmb ko mooy yaakaar ni am na keneen ku mën a indi lor pour yàlla keneen ku mën a indi keneen ku mën a indi njëriñ lu dul li gën a grave mooy nit ki bu demee ba jàpp ni am na ku nekk fële lu ma nekk xam na ko c'est très grave c'est très grave <laughs> sëñ bi ne waroon na nekk xëy moom mais déjà kii de waaye suñu xam na suñu dara nii c'est très grave c'est ki nga ne xam na sa lépp këram sax xamatu fa dara ñeneen gëm nañ ne xamatu fa dara yow nga bëgg ni xam na suuf lépp waaw dé mooy jikko dof boo xamante ni fu ko borom bi rek moo tax da ki dof ba yëg ni dof la woowee boppam dofu diw man maa ngi dofu Umar dof fan laa amee njëriñ mën ni ko baax dof kañ lañ ko mën a baax mooy saa bu nit ki demee ba dof ba koor lay mën a taxaw nag di baax koo dof moo tax borom bi taala wa tabaaraka ne yow dama juum lor ak njëriñ kenn donc moo koy te lii ma lay waxal nii kilifa diine yi am nañu ci bind wax ko de wa in yamsaska allahu bi durrin fala kaashifa lahu illa wa in yamsaska bi xayrin fa huwa ala kulli shay'in qadir la dal kenn mënu koo tegee ko yàlla boobu moom par force da koy gëm bi nga amee jàmm rek nga nangu ni lu la dal di wala ko teg waaye bu natt ñëwee nga dellu ko yàlla boo nekkee sa jàmm bu ñu waxee rek sëñ bay rek la nekk wala dafa ne ñu ngay nangam nangam boo fi sukkuroo ñaari fan ñetti fan ku tudd sëñ bi nga ko yàlla yi ndax xam nga ne sëñ bu yàlla te nekk ma ko mën a nga dem ko bi tax bokkaale kat yu bëri boo leen ko bi tax commencé nañu bàyyi bokkaale bokkaale kat yu bëri commencé nañu ko bàyyi te wallaahi li ma ciy gis ci ay misaal xaw ma nu mu toll moo tax ñu wax ni duaat yi dañoo war di dugg ci hôpital yi di sensibiliser nit ñi man dugg naa benn hôpital fekk benn waay njege naa da cee teg photo kilifa am tëdd ci noonu dañuy toog daal moom may pare avant ma koy ñëw génn na ko lem parce que gis naa ne nga nekkoon ko noonu ci daan def ci waxtaan moom fan laa xam yàlla may ñu toog fa bu mu dégg li ñu wax kon lor yàllaa koy tege nattu yàllaa koy tege beneen bi bokk su neexee yàlla neex diw su soobee sëriñ diw yow dégg ngeen jeunesse bi ñëpp di ko waxtaane ku sax ku wax sax balaa nga am jàmm ne soobee sëriñ diw waaw nangam nangam wax joo xamante ni siiw la ci làmmiñu jullit ñi waaye siiw la ci làmmiñu wa sallam ñëw nañ xadiisu xudayfatul al yamaan mu ne laa taqulu ma sha allah wa shaa fulaan yéen julit ñi yéen ndaw du leen wax su neexee yàlla ak diw loolu ku ko wax yàlla leen ko bàyyi su neexee yàlla ak diw diw amul coobare yemal ci su neexee yàlla dafa def ci rek loolu la yàlla sant naa beneen bi bokk na ci jël xéewal wéer ko bindeef rawatina bu dee bu bàkkaar bu grave la jël xéewal wéer ko bindéef bàkkaar bu grave loolu lu tasaaroo la ci làmmiñu xale yu bëri tey di wéy borom xéewal yi dañ koy dégg diw ubbil ma sama xéewal wala ku bokk ci kër diw da ngay am boobu sax tane waaye di wéy borom yi nga gis nit ku mën a tàllal loxo di ñaan bindeef ay xéewal te kam koy tàllal leer na ko ni kii dundatul loolu mooy utal yàlla morom moo tax borom bi ne fala taj'alu lillahi andaadan wa antum ta'lamuun yéen ndaw bu leen ngeen di ut di ko utal yàlla morom koo xee am na baay am na yaay ku am baay am yaay am na fu mu jaar foo mun ta wax sa xel falal jaay kooku mënul dara mbindeef la xataa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn du ko laajtee yoon kenn du ko laajtee yoon wala maa xam ñu sax dañuy bañ yàlla maa ngi lay ñaan xéewal ci barke Muhammad dañuy wax ne boo ko waxee def nga ko gaay kon muytul lu mel kon dara nag ki dul Muhammad du saxaaba du taabiin du taabiin du taabiin nga wëlbatiku di ko wóor ci loo xamante ne yàlla borom bi ne wala taj'alu lillahi andaa wa ta'maluun bokk na ci jël bàmmeelu nit ku baax moo xam di tibb ci suuf sa wala di raay tabla ko dafa defal wala sax ci bàmmeel bi nit ki toog fa war koo ñaanal waaye di ko ñaan kon mbokk yi maa ngi dégg sama bopp di dégg ndaw ñi nañu ko mooy baaxul bi gën a grave gën a tasaaroo nag te mu yëg ma lool mooy njabar njabar moom dafa mel ni léegi jeunesse bi moom la ñu ay moyens de trente ans ngay gis ci internet ñoom ngay gis ci YouTube ñoom ngay gis ci TikTok ñuy woote woo loo xam ne da ngay tiit. fo ne la kubi bi la ko xam ni nee na moom waa asxaabu ka fi ñoo am te boo ko doon nag amul mu plan dana fen wo waxuma la sax daa fen ba mu fen jullit nan lay jëlee yenn yi dama dee woon dama dekki waxuma am lii yàgg dara dama xool sama kii sax am na ku ma koy dinaa wax dama ko sëñ bi ku naan topp ba Sénégal yëpp nga wax ko lu Sénégal def wax ko doo fi jëlee ay xale yu ndaw nekko lu dum ak bisana kat mbokk yabal dafa xaram bi kullu sifati dafa xaram dem ci njabar dafa xaram moo tax suñu mbëri yi dem ci leen bi lamb di waru tax nga jaay sa àjjana da ko warul tax nga julit nga mënti def sacrifice te tey gis naa ne sport bi ñu bëri ñeme nañ cee def lu yàlla xaraam na nekk roi jaral na ren bi jaral na leen sax ay ciru nit wallahi dañuy laa ilaha rek waaye li gën a garaaw mooy ay ndaw ñoo xam ne su ma la ko lii su ma ko naan la ma ne su ko naan la ma mécanisme nga xamante ni bëri na lool di woote woo loo xamul li ma ci gën a tiital nag mooy léegi jigéen ñi dañ ci bàyyi jigéen bi ñu dégg micro man moom lu ma la wax du def lu ma la seetal def ay ndaw si soxna yi tuub leen ragal leen yàlla yonent bi nee na gis naa ne naa saatu ak lu wa diin seen diine dafa manqué seen xel dafa manqué lan moo leen dugal ci ngeen di gisaay ana jigéen ak osé toog naan dama ko doon sama maam lu ma la wax tey bu ko defee borom internet bi i bëri di la tey yow kay waxoon nga ko daaw amoon na waxoon nga ko daaw jéeg di la ne mooy seytaane moo toog di wax suñu baal beneen bi mooy ñi nekk ci site yi nekk petit journaliste ñooñu ragal leen yàlla koo xam ni borom bi yonent bi nee na ku toog dégg alquran lépp ku toog ak moom ne ko yaa ko defoon daaw mu am 40 jours boo jullee yàlla du ko nangu yow nga bëgg améliorer sa site bëgg am ay vues tax wala mu war sàll ma ñemee woo jël micro di ko dégg benn seytaane bu jigéen wala bu góor kan mooy daal kan mooy duma waxoon na ko daal lii laa ko wallahi wallahi yang kucing di ko yalla yow journaliste bi ko timal micro bi sa borom jippi na la ndax li mu tere nga def sa yonent jippi na la ndax li mu tere nga def parce que toog nga koo xam ne sa diine mën na jëyal parce que mënoo nekk journaliste bi laaj nit gëmoo ko mënul même bu doon LSI nga nekk jaru ko bu doon TF1 nga nekk jaru benn site boo xam ne day ko monétiser nga ci am ay weer ay le vingt deux ba nekk deux cent mille wala cent cinquante mille jar na nga sa diimu ishtaraw bi ayatillahi samanan qalila jël ñëwam yàlla nga jëndee ñu tuuti jigéen ñoo xamante ni dëgër fit ñeme ñeme parce que xamuñu te ñi xam xëy na waxuñ leen te dañ leen a war a ne leen na ngeen moytu li yéen jigéen ñi jigéen du gisaane jigéen du seex jigéen du njagat warul wax lu ñëwagul yaa gën a néew doole yaa gën a néew yaa gën a ragal lan loolu dugal ci wax lu ñëwul est-ce que doo النعمة عرفا أو كاهلا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأن كم تكون تنساك ولا من تجمعك ولا بين الشرطة نعم وحده نقوم لنوح لأن بيت من وقت محمد صلى الله عليه وسلم من وقت محمد القرآن بمك bokk na ci xale yi ñu tàmm seen làkk yu gën mooy giñ ci kurul yàlla giñ ci kurul yàlla wax ci kurul yàlla yonent bi ne man xalafa bi gayri laa faqad ashraka loolu day war a xam ne man war ñu def ko benn problème parce que ñu dégg par naa war mais ay giñ wax ci Sénégal léegi dégg ko benn par benn ñuy wax ñëpp ay nit la ñuy wax te nit boo ko seetee wax moom mooy bi may jeexalee mooy nañu bàyyi ren ni dara ngir ut dara ut dara amul lien ak ren tuur ba ko lu ñaaw da nga war a am combat ñu la rayam bëy bëy bi boo denkee boo taxaw ci kanam yàlla nañ yàlla laajal kii ci lan la ma rayal loo ko sama borom maa ngaa taxaw ñu rab bi nga xaral nag bi nga ren ni ngir combat ngay def jël dret bi tuur ko wala sotti ko war naa ko Nak bi day nekk yow xiyaam te day jàkkaarloog yow la yow yow yàlla kii ci lan la ma fekk dafa maa rey ci lu ma wax rey dafa jël sama bakkan ci lu ma wax jël sama bakkan waaye ki jël ki jël xaram bu dund suul ko ki jël bay laxas ko teg ko ci gaal dem ko ci diggee dee diigal ko lan ngay wax yàlla ba dama bëggoon nekk waa des rek dama bëggoon daan waa des rek dama bëggoon gañe te daan gañe yépp ma ko une su ngeen ko wax tey nga ñu dégg daal yow waaye diw daal na ko nangam nangam rendement bi fàtte nañ ko ñu ngi ci yow léegi nga jaay sa diine jaay sa ngor jaay sa iman ñàkk sa àjjana ndax ndax bëri jàmm amul dara ci suuf lu jar loolu mbokk ñu wut nag di ñaan ci turu nit dañu ko mot maa ngi dégg sama mbokk. dénk jeunesse surtout xale jigéen ñi dégg naa koo xam ne <laughs> moom moo gën a dëgg fi ñëpp jigéen ñi nee na dafa bëgg ubbi benn centre boo xam ne day jàngal jigéen ñi gisaane seet ne daa ko war a ne centre yàlla bu mu ubbi ci barke yàlla bu mu laa ilaha illallah wala yàlla billah damay ubbi centre damay jàngale bu gisaane loolu subhanallah jigéen ñi tiit leen dellu leen ginnaaw amul bokk ci benn xeet nag bu mën a daganal jëf jooju parce que li tax ma ne ko wax tudduma xeet bii ngir xeet inde mais dafa am ba jàgg ne man man man lépp lii laa am dama ko loolu déedéet nekk nit bu mun ta tekki nga nekk njabootat nekk séeréer mun ta tekki nga nekk njabootat nekk pël mun ta yii ay xeet lan yow yaa yor sa mën a bokk biir xeet nag bu ca amee ñu bon dañoo bon comme yow mais bokk ci xeet bi mënul tax a bon kon fexeel nga bokk ci lébu yi ragal yàlla fexeel nga bokk ci pël yi ragal yàlla fexeel nga bokk ci séeréer yi ragal yàlla waaye bu baax koo aw xeet ngir lu bon loolu ku ko def yaa ngi saaga xeet اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك فإنها تقضي ولا عليه إنه لا يدل من رعايته ولا يعيث من عليه تبارك ربنا عارف ولك الحمد على ما قضيت وإن صلاتك يحفظكم الله ومن سعيد يستغفرك إنه هو